Ça, c'est la... Thank you. Yeah. waaw. Ah. ñaanal yàlla yàlla may la gudd fan ak yàlla may la wér naan yi xam ne sa ma bàyyi ak sa mag yi naanoon dana ko yàlla nga wàcc yépp ba naan sa naan boobu di nuyu nag sunu gan bu mag bi di le président de la république Macky Sall mu ñëw ci kër baayam ñëw ci kër sëriñam remercie Mansour, Khalif général de Tidiane sa xarit sa taalibe sa doom moo ñëwaat tey ci anam yi ma ñëwee muy anamu mbokk ba génn xoolal tamit Côte d'Ivoire waaye mënuma génn réew mi te Ndiassane dafa sama njàng Thiénaba Thiénaba Thiénaba ah sëriñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar nuyu bu gën a tedd ak ziar bu gën a tedd di la jottali nuyu ak ziar ñëpp di nuyu ahlu tijaan yëpp ñoo xam ne tey xalifa général bi. di nuyu mboolem jullit ci Sénégal ak mboolem yi ñu bokk réew mi di nuyu suñu mbokk yi ñu fekk fii ci Tivaouane ñëw naa rek ànd ak ministre de l'intérieur bi yor wàllu diine bi ci gouvernement am na ñuy jaay ànd ak gouverneur bu région bu Thiès mënoon ñàkk ndax ki dem ni mu toll mu toll si sëriñ bi ni mu toll ci diine ji waaye ni mu toll ci réew mi ak fi ma toll kon uh, maa ngi sant suñu borom di ñaan yàlla lu mel ni géej fi lool uh, te it suñu borom bàyyi def nga yàgg fi lool suñu kanam ànd ak wér dana mën a mottali sumb yi nga xam ne yëpp naan nga ko ngir uh, Tiwaawan ak lislaam bi. ci fan yooyu la wàññeeku. ñu ñëw fekk fi doomam Serigne Habib Sakho